assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ahmadou karasi la jaamu sëriñ tuba xaadim rasul yéen suma bokki taalibe yi dama baaxoo wax ne leen ndajem murit lu mu bari bari ñaari sëriñ tuba munu fa am luñ bari bari benn sëriñ tubaa rekk moo fa nekk kanay sëriñ Touba sëñ Mamour ci jataay bii damay wax nit ñi ne leen suñ bëggee fay sëriñ tubaa fa mu tegoon Muhammadu Rasulullaay nu teg ko fa dañuy jox sëriñ Touba cër te moom xoolal fa mu tegoon Muhammadu Rasulullaay nekk na fi balab réer nit ñi ci biir kër gi moom sëriñ Touba léeg-léeg danaa réer ci kër gi léeg-léeg day dem ci àll bi réer nit ñi ñu koy wër bi mu réeree ci kër gi ay xale yu nekk ci bitti kër gi tollook moom benn xale dafa for ak weñ ne for naa ak Rasuul ci la Sëriñ Tuubaa daanu ba génn ci bitti woo benn nit ne ko demal andil ma fere yi tollu barab sàngam waaye lañu for nag buñ ko fa bàyyi biñ dikkee Serigne tubaa def ne weñ gi rasool bi nañ ko ko jaay di neexal gone yi ba jot ca weñ gi biñ ci sottee sikki si ba tàmbali ci barkeelu bu du woon xam goo xam sëriñ tubaa bu la ma mbubb ma doo ko soxla ndax xomaat ji lu mu wax tur wi rek nekk na fi barab di tagg Muhammad Rasulullah ci am néeg boo indee kayitu xaalis day wax tegal foofu du ko laal nga indi paset mu ne tegal foofu day mujj kayit yi ay naaf lay def paset yi ay jal mu gas ba mu xóot mu suul ak a wooteeg Moodu Mbàkke sët tët yi jal kayit ay naaf mu gas ba mu xóot mu suul waaye am na bis muy tagg Muhammadu Rasulullaay ba mu yàgg néeg bi am benn porox loolu di naawal kayit bi kayit gi muy bind ci lay soog a def bëri di def ci kayitu xaalis bi nag di def ci bën bëni néeg bi noox noox nuux sët am ku fa nekk muuñ benn taalibe bu fa nekk muuñ mu ne ko looy muuñ mu ne ko dala mbàkke hmm. lu ci waaye am de lu mu bari bari fàtte buntu rek la koy doyee te man de bunt bii bëgg yàq li muy liggéeyal Muhammad Rasulullah benn bunt gënumaa ñor ci fatt ko seen maama ngoog Sëriñ Tuubaa ngoog xoolal fam tegoon Muhammad Rasul lu ko baral añam bi rek nun seex sii nag boo nu dajale woon seex yépp Silla Jaxate Faal Dramé Siise nga xam ne sant wu la Sëriñ Tuubaa defar na ci nit ñi nun ñim defar koo ci dajeel muy dem nga ne ko loo rafle di ko wuti du ko xam bis bu set ak yoon wu ne fu mu mën a jëm taxawal nga arrêté ko mu taxaw nga ne ko loo rafle di ko wuti du ko xam kenn ku ne dafa juddu fekk lu di di am ci xeeti teraanga sëñ tubaa fàggul ko ko lu war a sëriñ Touba te añ bi li muy rëy rëy añ yi li muy rëy rëy dajale nu rek nga teg nu fi bala wut ay soy yu ba yu tollook noonu wutal sawara wut ay weñ yu tollook nun sooy bam xonq cur ñu nuy woo kenn par kenn kenn ku nañu ne la kaay añ bu rëy bii nga xam ne maam diw moo fi liggéeyoon añ bii di ci añ ba nekkatu fi bàyyi diw ñëw di ci añ ba nekkatu fi bàyyi fi gone gu mel ne Modou Kara Sylla la mu ciy añ am ci lu mag ñi amul woon kaay dañ lay waatloo su fekkee àq joo jox yàlla moo fi bàyyi añub kër maam diw bi waat ku waat lakk koo ci ne ndax pas-pas boo am sa digg sëriñ Tuubaa bu mat sëkk moo fi bàyyi añub kër maam bi ku lakk koo ndax sax jaamu yàlla gu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk gu rafet sa ngor goo am sa digg ak sëriñ Tuubaa ndax moo fi bàyyi añub kër maam diw bi ngay añe man nun ñi ñëpp ku waat lakk ah ñi ëpp ñi mel ne man sax dañoo def lu yàq añi kër yi sëñ Touba yor ngoram gi nëbb ci suñ ngoreet gi yor matam gi nëbb ci suñ manqué gi yor mbaaxam gi nëbb ci suñ doy gi kër gu ne la fa newoon mu di ko dolli guddi di ko dolli bëccëg loolu war a fayee Serigne Touba nekk jaamu sëriñ Serigne Touba Xaadim Rasul xam nga fii moom sama yëfa sëñ Mor Jëbu sëñ ma paate sëñ Mbàkke jam sëñ Seex Silla Dibaan hmm? kon sama yëfa te njabootu sëriñ bi fi bàyyi Daaru Musti ak Cees kenn ko ne nam def boppam na la ma def dañuy wax Moodu Mbàkke xaritam man leen déet ñëpp <laughs> hmm? doon nit koo xam ne seen maam lañ nuru fii nu toll duggal ci kër yi seex yi rek dugg leen fu leen neex dugg leen ku ne say bokk nga nuru ku am bokk yu baax da ngay baax ku am bokk yu baaxul doo baax ku am bokk yu jàmbaare da ngay jàmbaare ku say bokk yaafus da ngay yaafus maam Thierno moo ne Thierno Ibra yi ñëpp xam-xam ci àdduna bi ñoo tuddee doomu aadama ab wàññi nit géwél nit ñaata la ñaar fukk nee na boroom xam-xam yi ñoo tuddee doomu aadama nit boroom daanu ne xam ngeen luñ ci jublu mu ne ko déet ñu ne ko déedéet mu ne nit nit la tudd mu ne soo amee sa doom di ko yar di ko xamal di wax lu baax muy dégg nga di ko ko wax loo di jëf lu baax muy gis nga di ko jëfloo ba mu am nit at ci loolu jëlatul contrôle ne booy dox di dox ba gis muy dugg fu baaxul après bàyyil mu dugg fa ñu ne ko li tax mu ne dara du ko fa soppi kon gaa yi seen maam rek lañ nuru ak seeni baay sëñ Mor Jabu nag Sëriñ Tuba Sëriñ Tuba moo ko wax ne lu ma am da nga ko am waxu ko ko Seex Ibra Faal anakan la ma paate sëñ ma ndumbe kan la sëñ Mor Jabu mën nga koy lim nag lu sëñ Tuba am rek andil Hmm? tey damaa yendu àll suba damay yendu àll damay fanaan àll ci màggal waaye lii day sama yëf te boroom daal sëñ mu lawa bàll maam Ceerno ko woo ba mu toog mu ne ko Moodu ma jàngal la adduna mu ne Ceerno di ko déglu mu ne ko Moodu ak sëriñ jëlul yut sa mbubb loolu la ko njëkk a wax lu mu ko ca tegal footi baaraam ak ñiiñ bokkutik sëriñ dégg mu ne ko ak lan mu ne ko loolu kese fayul bor mu ne ko loo ci jublu mu ne ko moo du ku la bëgg bëgg ko ku la teral fay ko teraanga ja ku la yëg yëg ko waaye fu la waay teg boo ko magee day tàllal loxoom nga tefliwul lool rek dem ne déedéet loolu du ak sëriñ ak yaafus te koo naan xaw ma du ma koy def nam la def rek a tax kon seen bis bii li ma leen di digal am na nag lu ma leen bëgg a digal yéen waa kër sëñ Mor Jëbb ku leen ëpp amut waaye dangeen di font wane leen seen bopp te wane seen maam fu dara niwut nañ fi ñu koy wax di ko wax ba dara ne fa fii daraa ngi fi fexe leen ba ñëpp xam li fi ne wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Modou